ma ne dama ciy sargalaat sëriñ Alaaji Sekk xasaayit ñaar ñii ñoo doon pirloo tànt yi sëñ Ablaye Sekk sëñ Alaaji Sekk man may aw Alaaji Sekk ñuy daje ci baas baas yi bu ñu yeewoo trois mille su ma ko Alaaji joxut sama pantre bee du mën a tëdd waaye buñ ñu jàngee ba fajar mu jox ma trois mille wala six mille Alaaji bul jooy soo jooyee damay jooy Serigne Cheikh nu ngi lay nuyu bu baax a baax te siyaare bu baax baax waaye dégloo leen dégloo nanga fi yàgg ci te bañ a mën ndax tey neex na ñëpp ñëw mhm. bi ma gisee Malick sama sama roñ daa daal ndax démb la ko kere bi Seex Basiiru yu ñëw ci sa néeg yaay maa ngi yow fa nekk ak Modou Ba lu sëñ Basiiru wax mu sëñ Fallu baayam du ko dégg yaayam du ko dégg ay magam du ko dégg moo koy waxaat ci tukkuloo mu dégg ko ci sama kanam te booba nag daa metti lool Seydou sonn lool ma taxaw ni ko saway mu ne am ko bul tiit ñun dongoy Sëñ Tuubaa lañ te lépp dina baax kon bu lépp baaxee mu fekk ma fi dinaa bég gis nga bi ma gisee Malick magam gis gone ñu jaabante waxu barke Sëriñ Tuubaa sama rangoñ daa wadd ndax damaa xam ci biir kër ga la fa ne ak coono ya fa Seydou jànkoonteel ba tollu fii tey neexul woon de daa naqari woon lool Seydou bëgg Sëriñ Basirum Sëñ Fallu lool sëñ bëri suum sëñ Fallu tetti Seydou lool bëgg ko lool jàpp ko ko te saa su ne mun naa ko dina baax di Seydou te lu mu ciy wax ci sama kanam lay doon kon Seydou sant nañu baax a baax ñaar ñi itam nga sargal muy sëriñ Abdoulaye sekk ak Serigne Alaaj Seck moom laa daa aw te ma nan ko loolu nag Abdoulaye sekk da ko daa wax naa pénc bu taxawee sa ginnaaw rek damay bég boo nekkee ay tukulóor ñëpp di ay tiijaan dégguñu olof sëñ Fallou ni le sim pet ni la yow ci suma kër gay bokk mu doy waar lool sëy doon jàmbaar lool dëgëru fit lool ma ni ko nag yëf yi doo ci wéet ndax foo taxaw dinaa ko taxaw te lu la wax rek dinañ ma ko wax te ku waxee dinaa wax kon bu demee ba nga xam ne ñëpp nu nga noonu lépp neex na ma fekk waat ko sama xol bi day sedd guy Seydou sama xol sedd na Seydou barke sëñ Tuubaa tey dama doon dem Daaru Kañ nii ma du dem te fekkoon bés Seydou ndax lu tax seere sii laa bëgg na seere ndax démb la daa bare lu nga xam ne mën nu ko wax te waaye lépp fekk naa ko Xaadim Gay sama xarit nga waaw yàgg na barke sëñ Tuubaa Mbàkke moom rek ci jànkat yi moo ci sama xarit nga xam ne sama xarit la danaa def buy jàng woo ma ni ma foo ne te du ca dégg lu neex man ko maa ngi sa sama kër mun ma maa ngi fi ñëw wula jëlal taxi fekk ma barab sangam ma jël taxi fekk ko mu fay ko muy waxtaan maak moom waxtaan yu xóot waaye gis nga ko goree nii ku amee yërmande nii bëgg nitam te xam nga lu gën a jafe dem ba nga xam ne ñëpp a ngi naa diw koom may koom mi la gaa bëgg waaye moom boo yul koom mi sax dina la sagal barke Serigne Touba Mbacke boo yurul koom mi moom dina la sagal dina ñëw jàng ba nu yaakaar ni ay milliards lañ ko jox te boobu fekkul joxuñu ko dara kon sëñ Khadim ñu ngi ñaan ci barkeb Cheikh Souhaïb nga yàgg fi loolu te wér yàgg sa njaboot rek mais maa ngi nuyu ñépp nag ngañ bu yaa ngi xool rek maa ngi siyaar ku tedd gi sama siyaar sama diggante moom moom daa xajul fii ndax yow xam nga ne ma maag wooy juróom benn lanu te kër seexu meemu suñ fallu la ma gis faama ma faa ko nu ànd ba ni ma fi demee ba mu jóge fi kon nag yéen seenu siyaar damay ñëw ba seen kër jërëjëf naa bu baax baax Seydou sama xol sedd na barke Sëñ Tuubaa sama xol sedd na buy jërëjëf moom ñun bàyyi lañu koy wax léegi nag dañuy jàll ci kilifa yi toog ko defee mag Sëriñ Fallou Galas Seck ñu jàkkarloo waat comme d'habitude rek Fallou bàyyiwuma de Ablaye Seck ak sëñ Alaaji Seck ma leen di sargal ndax xasaayit ndax man damaa bëgg xasaayit ma doon awu Alaaji sekk su ma musaan aw bu ma yeewoo trois mille yi wala cinq mille yi du ma ko gëmee jërëjëf Seck yàlla na la yàlla fay moo tax ma ne la at mu ne danaa la sargal boole ci kenn ndax sama yéene ci yow bàyyi gu ma sama yéene ci yow xam naa ko yàlla xam naa ko dina dal ci man bu ko defee bu ko defee euh, Cheikh Abdoul Fatah doomi alaaji Basiru Mbàkke Falilu yow yaa indi kàddu sëriñ Basiru Fallu waaye sa bàyyi ngi toog bu ngeen noppee rek sëriñ Samba Jaw la ñuy jox sëriñ Muntaxa mu wax kàddu sëriñ Soxna Baali ñu jox Serigne Omar Bousso Khalil mi nga xam ne mooy représentant bi sëñ Abdou Fata sëñ Cheikh Oumy ñaanal nu ak sëñ Modou Abdou Goudoot ñu yeggaleeg ak Fallou Seck ma defanteeg moom bu ko defee Mamour grand Serigne de Thiès dangaa def lu rëy dafa am grand Serigne de Dakar am grand Serigne de Thiès yow yaay grand Serigne de Thiès nga jógee Thiès ak délégation bu rëy takk manto yi. yor kaan bi yor junjung yi ñëw aar baas bi aaraale nu jëf grâce Serigne de Dakar ak grâce Serigne de Thiès dégg naa lool bu guddi amul biddiw du am njariñ ndax lu muy jaay jant ko ko ëpp ma bëgg sànni samay kàddu bala moo dem ci alaaji Serigne Cheikh ñu mbàkkam Serigne Fallou sañ naa ko ci moom nag ndax dafa am lool moom defu ko Cheikh Abdoul Aziz Fall mais defu ko ndeysaan noo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha sa borom yàlla yàggal ko te wéral ko naa li gaa baax yëpp mu eggale ko tàmbali yosam te lépp àgg te mu ànd koog noonu sëriñ di Fall mu sëriñ Modou Mbend mi toog ci jataay bu maam Cheikh Ibrahima Fall bi ñaanal naa ko ñaan gu mel noonu di ñaanal bu baax sëriñ Abo Baraka mi toog ci jataay bi Serigne Fallou Mbacké bi waaye di ñaanal sëriñ Bassir mu Serigne Fallou tey bi mu ñëwee ci suba rek la jataay bi neex waaye ñoo ngi ñaanal bu baax nag ji Serigne Cheikh Oumy Mbacké Serigne Fallou sunu maam ñun waa kër Serigne Abdourahmane Fall Tilala ndax it nag loola du jëfi tey Sëñ Touba ko defoon waaye noo ngi ñaanal suñu jàmbaar ji Cheikh Sirif Abdourahmane Fall Tilala xaadimul xadim sa borom yàlla yeesal ngërëm ak yër yërmande fi moom di ñaanal taawam bu baax bi nga xamante ne moo toog jataayam bi Sirif Abdoul Aziz Fall Tilala sa borom yàlla gën ko fee yàggal sëñ Touba moo jëlee maamoon gànnaar waaye bi mu ñëwee fekk na fi ñëpp dox ko soxna bu Bousso ni ko Tilala bokkal ak soxna Marème Kunta wàcc waay ci kër gi kon sëñ Fallooy nijaayam xanaa soxna Aminatu moomu nag di ndey Sirif Abdourahmane ñu ngi ko denc ci guy texe uufal ko soxna aw busu ak soxna Marema Kunta loolu mooy cër bi moo tax sëñ bi bi mu ñëwee ñu joxoñ ko fauteuil yi mu ni déedéet sama maam fi ne daa di raam daal ni ko maam Mbàkke mu jàpp ci sikkim bi loolu sëñ Tuubaa waaye nag bu dee dëggee dëgg rek nag ndaje moo gis ay murid rek nekk fa fauteuil yi xat am na ku toog ku warta toog ndaje murid siège yi xat bañ naan may leen gan ñu toog am na ku toog ku warta toog waaye bu dee ñuy war a toog rek kay toog moom kon jataay bi du xat waaye ñun am nañ sens bi nga jógee léegi di may sëñ Xaadim Gueye da ngaa bëgg a woon Seydou ni ko saw gan samay gan lanu ndax Seydou bi mu demee sëñ Basiiru ba mu dimbali ko da koo booyal mu jëm si yow te yow nga mën sa nit mbagg man te nit lool tabe te daraja lool te fi ñëpp yam nag fa nga ne mooy sëñ Fallou sama baay rek sëñ Touba sama maam soriwul sëñ Modou Mbacke noo ngi lay siyaare bu baax bala si biir maaram di siyaare njabootu sëñ Touba gi fi ne Seydou li mu def laa bëgg a wax am loo xamante ni soxna Aji Faye mii laa koy waxal Seydou li mu def daf ni damay rendre hommage Serif Abdourahmane Tilala loolu nag bu ab Sinwaa ñëwoon ci dëkk bi ñu ni kan mooy Chérif Abdourahmane Tilala ñu ni ku jaayan njuréelam gi ci yonent bi na jox ko sëñ Touba waaye sëñ Fallooy kër ndayam ñu ni Seydou fan la bokk ñu ni sëriñ Basiru mu sëñ Fallu mooy ñu ni Seydou kat day ñaanal Chérif Abdourahmane ñu askan wi ñoo tabe ñoo gore ñoo am ngor ñoo tedd fan la bokk kër sëñ Fallu Chérif Abdourahmane fan la bokk kër sëñ Fallu Seydou koy rendre hommage mooy dama koy ñaanal ci bis bi nga xamante ne dama ciy sant sëñ Fallu yenu na maanaam gis nga course bi du jox médaille bi ki dàq daw ki yegg ci ligne arrivée bi lañ koy jox ndax fakkastalu mi ngi ci yoon wi course <laughs> bi duñ jox médaille bi ki dàq daw déedéet ki yegg si lañ koy jox parce que fakkastalu dafa nekk ci yoon wi ligne d'arrivée bi ki fi yegg si rek la ñuy jox kon dara bu ñu jaral yàkkamti parce que ligne d'arrivée bi dafa bëri ay surprise mooy li Seydou wax 3000 lay soxla ngir mën a tëdd ca pantrem ba tey mi ngi maye ay 3000 yu bëree bëri kon mu ngi sant Serigne Fallou waaye Seydou daf maa wax ni ma waxal Serigne Abdoul Aziz moo tax bi nga xoolee rakkam yi daan ni xalifa bee ñëw exactement xalifa bi moo war a ñëw parce que moom dafa wax ni li des sama dund mooy ñaanal sama baay ak yeggal yéenam ci Serigne Touba waaw bu fekkee ni Seydou daf koy def ba pare man la waxal Seydou ngi maa ngi ni ma bu fekkee ni sëñ bi jox na ma benn dërëm barke Serigne Fallou du ko laal damay ñaanal Sérif Abdourahmane Fall Tilala parce que maa ko yëg korite gi Sérif Abdourahmane mujjee jullee ci Masaalikul Jinaan Seydou mii moo koy bijjanti te sëriñ bi moo ma wax ca labo ni ma Seydou ak aada xasaay li ñu la wax dëgg la dan may taxawu te du may benn dërëm bu ma leen jox kon sëñ Abdoul Aziz day ñëw amul yitte tey yu gën a rey ñëw ca ndax baayam bi mu amul dul moom day sama rakk waaye di sama sëriñ nag day sama rakk ndax baay sëriñ fay moo ma jur ni ko juree ni ma kaay ma yónni nag nga dem am boo ñëwee am ma dem ca yónneen ba am ñëw mu jox ma tey maay jëruñ sama kër sëriñ am doy na lool ci teranga ngay jëruñ ci kër sëriñ Tuubaa waaye soxna aji mii nag ma ñëw mu ni ma kaay sama teranga ji ma war a jox Seydou si yaa ma koy joxal te alaaji Seydou kat wàccoo ak moom ba mu jëlee njëkke jox ko ko te ku la may njëkkee am na yenn tudde la doom te yow bi nga jàppee alaaj sëñ Cheikh Oumy mi nga ko jàppoon moom benn bëgg la am muy alaaji sëñ Cheikh bëggee boo ko rombee doo ko nuyu mu nuyu la moom ndax alaaji suñu seex la léegi nag nga bëgg ko ba noppi di woote sa bis ndakaaru di la déglu réew mi di la déglu international parce que TFM télé la boo xam ñëpp fay dem CNM Salane New Media ñoo nekk fi di def direct bi kon ñëpp a ngi may xool ci àdduna nga ni soxna Aji Faye marraine nga ci bis bi marraine boobu nga ko defal nag am naa droit ci waxi sëñ Abdoul Aziz ma wax ci waxi soxna Aji Faye mii te noonu lan bëggante loolu dama koy wax sëñ bi yëg ko ndax ab sëtama li ma wax nag doy na sëñ bi moom fi ne waaj na ba jekk sëñ Abdou waajal yi deewit nag ndax sëñ bi waaj na moom kon bu fekkee nii damaa ñëw mun ma yow yaay sama mag yaa may joxeel ci fii ma war a waxee laa koy waxee Seydou soxna aji nee na doyoon na sëkk te ba nga ko mayee njëkkee te moom amul dul sëñ Fallou nag ndax alaaji seexee buntam nu mel alaaji seex la baayam ba mu koy gërëm ci kër ndayam boobu alaaji seex la ko joxoñ mu nekk fa nag ba am fa surub sax muy seex abdul aat kon loola nag na nga sa xel ni soxna aji nee na lii asakay yéenam la waaye la ngeen bokk muy sëñ fàllu nag lam ci am mi ngi la ciy tibbal na nga seere ni def na la càmmeñam def na la xaritam def na la waxtandoom nit ku baax nga te seen yow ku am kóllëre nga te gis nga àdduna fi mu toll nañu àndi ay valeur gis nga yii day jeex te ku jël lépp da ngay fot te yàlla noppi na ci ñun te ñun sëñ Tuubaa lan yaakaar kon premier la ñu mën a jël Cheikh Moustapha maa ngi lay sant Thiam Cheikh Mamoun sëñ aada yéen ñëpp laa xam jërëjëf Faye yow bu dul lii sax nga jox ma teraanga sëñ Ablaye Seck maa ngi lay nuyu di nuyu suñu alaaji waaye suñ kii mooy aspoor kii mooy génn kii mooy garbi kii mooy murit kii mooy nit ku laabiir kii mooy nit ku bëggul kenn échec kii moo bëggul kenn échec kii bu lay jàppale du xool loo am loo amul kii bu lay waxal lu baax xamul nga am ak nga ñàkk kii bu lay defal lu baax xamul nga teew nga wuute li ma wax nag ñeen ñëpp ko xamandoo wax naa ko ne sa bis bi ku ñëw dalay fay si kenn lebal juula da doon neex rek moo tax ma noppi te bu dee neex man du ma bëgg a wax barke Serigne Bamba waaye yow Seydou boo amul am nga lu baax sax ndax lii lu baax te sëñ bee nga àndal moo ne ma du ma ànd pour arrière sëñ Cheikh Oumy Mbacké Fallilou lu mais ñam leen ñam leen rek ahlan wa sahlan wal ghanaa'im njëkk ci nuyu bu tedd bi sëñ Mountakha xalif général des mourides di ko ñaanal mu yàgg fi te wér noonu lañ koy ñaani taalib yi yëpp waaye ziar beeg nuyoo bi yëpp dañ koy teg ci ki nga xam ne mooy surub sëriñ di surub xarit sëñ Cheikh Oumy mii toog Falilou mu jàllale ko ci mbokkam yi jàllale ko ci taalibe yi di sant bu baax taalibe yi fi nekk ndax taalibe yi ñun ñooy sunuy moroom ñun taalibe yi la ñuy àndal guddeeg bëccëg ñooy sunuy moroom surtout nag tey ñi xewle mooy communicateur traditionnel yu sëñ Touba yi ñoom la ñuy àndal guddee bëccëg kàddu yi nag dafa jóge ci ci ñaar dama bëgg ngeen déglu ma bu baax kàddu gu njëkk ji dafa jóge ci alaaji Mbàkke yu fay di xalif général di xale di représentant du xalif fii ci Ndakaaru ak li ko wër Seydina Oumar Bousso ñu ngi lay nuyu bu baax ndax moom bu ma ko tuddee tudd naa représentant yi nekk ci Ndakaaru yépp mu nekk fii ci Géejawaay lii may wax mënoon na ko wax moom mi toog maa ngi ànd ak Alaaji Ali Wañ ànd ak Xaadim Fay mii di doomam ak diwaanu ñoom Moustapha ngi yëpp ñi fi toog ñëpp diwaan bi leen bokk ñii ñëpp diwaan bi ndax sunu njaboot lan Alaaji Mbàkk yu sëñ bi xam na ne moom Seydou lu mu xewle na fa toog ba mu jeex mu ne ma boo ñëwee nag ma nuyul sëñ bi bu baax a baax a baax ndax xam fi nga teg Seydou mii waaye da lay waxal ne Seydou day moom jeex na ci Masaalikal naan ndax cër bi sëñ bi jël wàccee ko ci mbaggam Seydou mii jël na ci lu baree bare ban commencé nag Masaalik ba nëgë loolu mën naa ko seede taalibi yi fi nekk tamit mën nañ ko seede Alaaji Mbàkke yu nee na wéetul ci lii mu yoreel sëñ bi ci ndakaaru ndax moom mii te bu tuddee jëmmam ji rekk mënoon naa doy waaye seet na ne Seydou fu nuy defe lu baax Seydoo nga fa mission bu metti nag la communicateur yu yore mission bu metti yii saa sax booy seetlu dañ leen di siis ci ci béréb yu mel nii waaye seet na ne lu fi baax rek lu fi baax lu tegu ci yoon rek ñoom la loolu nag xam nañ ko Seydou mii tey Seydoo xewle Seydou rek la wax alaaji Mbàkke yi ñu koy sant bu baax diwaanu muridina bi tamit ña koy sant bu baax a baax ndakaaru ak li ko wër yépp ci murid yi ña ngi koy sant umma islamique bi ña koy sant ndax du dem fenn bërësloo nu ñun ndax fiiraange gi nekk ci ñun ñuy xool nit ñi ni ñuy doxalee ak nu ñuy waxee waaye boo waxee ba daaneel rek da ngay gën a sant alaaji mbàkk wi nag ba mu jàllee Antoine ministre de l'intérieur sëñ bi mag lay nuyu bu baax ndax dafa bokk ci diwaanu Muridina dib taalibe ñun nag sëñ bi rek leen gëm sëñ Touba rek Isaa sax booy tudd nit dañuy wax ne nangam ak nangam waaye ku jëf ci sëñ bi di taalibe sëñ bi ñu war laa tudd même boo ci deful woon sax waaye boo ciy def lu nit xew de nga ñëw jàpp ca wax dëgg buñ la ragalee tudd nag damaa xamul senegal booy lan Antoine daanaka biir bi biig rek man moom mii ak keneen kilifa toog na ma jàpp na ci bis bii avec discrétion maanaam lu lu lu loo xam ne bëggul kenn gis ko bi mu nuy recevoir sax daanaka danoo danoo làqu sëñ bi nan ko ñaanal bu baax nan ko ñaanal bu baax ndax kuy jëf ci sëñ Touba te kat moo du woolu sonaluñ ko defaluñ ko dara moo woolu nee naa Seydou ànd leen ak moom ñëw ñu ànd ak moom kooku baax na kon na ko ñëpp ñaanal mag ngi sant Seydou bu baax ndax gis na ne Seydou ci régulateur sociaux yi la bokk maanaam bâche bu mu dem baa mbooloo mu dem dana fa wax jàmm ba ñëpp ree ñëpp xàqtaay ñëpp ànd ak seen jàmm ñëpp jógandoo ci jàmm kon loolu bu koy def réew mi la koy defal nii mu waxe ne Samba Ndiaye woo na ko ci présidence dib xaritam di doomi ndeyam noonu yi la ko keneen keneen woo feneen keneen woo feneen ndax moom mii moo baax kon diwaanu murid di lépp bépp koy sant Mbacke yow koy sant Antoine koy sant ñi ma àndal ñëpp ba ci ñii toog ñoom ñëpp bokk ci diwaan bi ñu ngi sant Seydou bu baax a baax a baax sëñ bi loolu lu doon amoon ci li nuy indi rek parce que dama ne woon Seydina Bousso bii bu toogee nekk fi représentant bi nekk ku baax na ndax kër Masaalikul naan kët fa la nekk waaye muri yi lan fa nekkal umma islamique bi lan fa nekkal mbàkk yu day bañ ba di ko wax ne bu kenn sonal kenn taalib bi bu ñëwee nan ànd ak ñoom ci liggéey bi lu nu am ñu jox ci ñëpp bokk ci yéene waaye euh, alaaji Cheikh mi moom dañ ci lay wàccee sama kàddu yàlla na fi yàgg ndax organisation yu njëkk yi ba mu koy def léegi mag laa mënatuma ko waaye bis yu mag yi fi nekk yépp bi muy jóg ñoo koy ànd waaye danaa liggéey ci biir liggéey ci suuf bi muy yëkkati bisam bi fii bis tumuranke na fi kii lim na fi Amadou Ba ma nga ma nga Italie ak Modou Kandji ma leen ñoom ñoo fi nekkoon fii nekk fi di ñuy wax ñu leen di tuddee ay tuut tànk ba léegi ay kilifa lañu ba forme nañ ma ngi nii waa kër sëñ Fay ngi nii waa bi ñuy tudd aji meeg ñoom ñëpp sëñ Fay def fi loo xam ne kenn dootu ko fi defe ci Pikine ak lu ko wër ànd ak Baye Serigne Ngom ak Alaaji Njaga Géy loolu mooy murit gi loolu lañ daan dund bu booba moom mii sëñ bi Pikine gi booba yombul woon yombul woon de waaye boo koy gis il fidel fidèle ci amitié il est trop fidèle moom mii taalibi yi mu doon ànd rek lay àndal ñi mu doon jëflante rek lay jëflante loolu lan ne woon nañ ko wax ci jëmmam ji di ko ñaanal mu yàgg sëñ Modou ñu ngi lay sant bu baax ñu lay sant bu baax gis na li ngay daj ci màggal gi ci lépp ci gan yi ña ngi koy gis ndax ñu sëñ bi rek lañuy xool ñun inspecteur u sëñ bi lañu ak comme mën a doon dañ lay xool dina lijjanti waaye wóor na ma ne yaa ngi ci yoon jërëjëf Mbacke muy kaddu Alaaji Mbacke yu di kaddu waa Ndakaaru gépp ak li nga xam ni ma bàyyi ko ci monsieur le ministre Antoine Diome loolu it am na solo ndax nun biñ jàppee bis ba tey nee na mi ngi nuyu jarbaatam yii